assalamu salaamaaleykum mbok talibi ñu ngi ni di fi ci Touba keur seigne Abdou Karim euh, tanki nak dara man mi and ak maas samay tank moy mas, ak maas and bi mu daf ma kilifa daf ma waajur dafa magum kon bu jógee ci sa ñëw kër sëñ Touba na keur seigne Fall fi ci Ndindi na dé seigne Abdou Karim ak Younus bi nga xamna xaritam la euh, na ma àndal ak man ma di gungé ndaw la euh, tollu ci yëngu ci liggéeyam ak lepp dem murit tak yaakar seigne Touba. ah kon nag rafet na mu ñëw fii ci Touba ñu ànd mu siyaare ji bëgg nag siyaare ci ma kër sëñ Touba yëpp ak xalifa yeeg yëpp danañ te yendu tey Touba def siyaare waa kër sëñ Touba yëpp eh, sàkku ñaan ci nag ndax comme daa toll ci liggéey tollu ci ndaw eh, ñuy sàkku si ndax liñ bëgg lépp fi nañ ko yaakaar muy sëñ Touba kon nag ñëw fi rafet na ñu àndandoo may gunge ko ànd ak moom jiital jiital ko mu jiital ma ma yóbbu ci buntu kër sëñ Touba yi nga man waa Touba ànd ak soxna yi nga xam ne ci waa la ñu mu ay ay yaayam ñu ànd ak ñoom gunge ko ñu siyaare si sëñ Abdou Karim war nañu dem gis sëñ Mountakha ak sëñ Abibu war nañoo gis ak sëñ Seexum sëñ Abdou Hakim sëñ Isaaxa euh, waa kër sëñ Baara même daal lañ bëgg a ne ba suba pour siyaare si njaboot sëñ Touba gépp maas nag li nga def rafet na ñu ngi ñaan ci barke bi sëñ Touba lépp loo fi sàkku ak loo fi kuur rek suñ borom yombalal la ko. santaal sant yonent bi sant sëriñ Touba sant sëriñ Fallou sant jëmb ji ñu fekk si fii suñu borom yàggal ko fi lool te wér ñu ànd suñu taaw góor muy Maas Diop sunu taaw bu dëkk kees Mass Diop xale bu am jom xale bu bëgg waa sa kër sëñ Touba xale boo xam ne xolam sëñ Bamba rek a si ne te xol bu sëñ Bamba nekk dootul ñuul moo tax ñu topp ko amul dara caaxaan sëñ Touba rek ko ñoon man nag sëñ Bamba ma ñoon ku bëgg sëñ Bamba man la tatif ku bëgg sëñ Bamba ma daan la Mass ñu ngi lay ñaanal si ëttub sëñ Fallou bii li nga commencé yan na yegg si barke sëñ Fallou yan na yegg si barke sëñ Fallou yàlla bu da gis dara lu ñuy ragal ba lépp loo xam ni dañuy ah, indi beneen problème daal yàlla buñ ko gis barke barkeb Sëñ Fallu man nag kontaan naa si yow Mass gën a bégaat si yow ndax de dangaa ñëw bëkk démb wax ak ñoom bëkk démb ñëw tey nga ñëw Touba li amul rek ko man non xol bu Sëñ Fallu nekkul Sëñ Touba si doo mën lii gis nga Pastef bii nga ñëwee tey tey xam ne Sëñ Fallooy waaja billahi Sëñ Fallooy waaja gis nga koy togg ci ndaw tuddoo Sëñ Fallu sa togg du neex yal na sa togg neex te gos si barke Sëñ Fallu loolu nga wax ne lii amul rek ko dëgg la ndax bëkk démb lañ jox rendez-vous ñu jël suñ def li ñuy def suñu réunion tey aji mu ñëw fi kon dénk nañ ko yàlla dénk ko yonent bi dénk ko Serigne Touba ndam li Serigne Touba amoon ci noonu yàlla na ko am ci barke Cheikh Mamadou Fadal ndam li Serigne Touba amoon ko am ci barke Cheikh Abdou Karim te am naa ci yaakaar barke Cheikh Mamadou Fadal di nga am ndam ci kàttanu yàlla ak daraja Seydina Mohamed barke salaatul Fatiha yàlla na nga mel ne sooroot bi ci Touba yaa ku la bëgg ak koo àndal wasalaam barke Cheikh Mamadou Fadal. ndax li yombul Serigne Abdou Karim neexut a gis ni mu yaa ko may ndax danga ngaa teg nit ñi fa nga leen war a teg sab ak sa teggeen ak sa taalibe moo tax boo ñu woo ne kaañ dem Touba ñun Touba sawar nañ ci lool loolu kon ñu ngi la koy waxal bu baax bëgg fa la xam naa ay xol bi laa fees ba mënut a wax dara waaye loolu daal mooy tànk yi kon mas mën naa laa joti loolu kàddu maas waaw. jërëjëf waaw ginnaaw bi leen sante eh, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di dëkk ñëw ci dëkk bu tedd bi di Touba. ñëpp xam ni dëkk bi boroom muy xaadimul Moustapha ñu ngi ziar kilifa xalif général Mouride sëñ Mountakha Mbacké di ziar euh, ñëpp di ziar euh, këru Mouride yëpp tey nag dañoo ñëwoon si biir kër sëñ Fallou doon ziar si suñu sëriñ suñu kilifa suñu lépp ñëpp xam ko ci baaxam ak si si si si ci tabeem ak ci léppam boo ñëwee ci kër gi rek dangay xam ni fii kër ku tab moo fi ne ñëwoon ziar si ko tàll ko suñu loxo mu ñaanal ñu ñaanal réew mi ñaanal mbokki jullit yi ñaanal ñëpp ñun tamit dee nañ ko ci li ñu jëm ak ci lu ñu nekk jamono yi ñu toll ñaanal nañu dénk nañu ay kàddu te incha allah dinañ ko jëfee ba mu mat sëkk bi jógee fii nag am na ci yeneen yu ñuy dem. kër yëpp la ñuy dem dinañ dem ci kër yëpp ziar ñëpp gis ñëpp waxtaan ak ñëpp wax leen ci lu ñu li ñu bëgg ci Sénégal lu ñu bëggal askan bi ak lu ñu bëgg eh, réew mi doxe ko maa ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa